yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi jërëjëf ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ni kenn ci kilifa yi nga xamante ni ñooy faral di am taxawaay bu am solo jëmale ko ci daayira bi nga xam mooy daayira Muxaddamatul Xidma bu Jumaay tubaa muy Sëñ Mor Tambédou nekkoon Madrid euh, ca Espagne Euh, doon jëwriñ foofu am daayira bu am solo boo xam ne am na am na taxawaay bu am solo boo foofu moom nag bu bokkoon ci jëwriñ yi tey jii nag mu ñëw fekk si woon jotaay bi gis li nga xamante ni mooy ndogu yi ñu fiy def ak itam waxtaan yu am solo yi nga xam daayira moom bi koy def mu am kaddu yu soññee mu bëggoon a def ci mbokk yu Madelcam yi ak Espagne ak mboolem waa diaspora yëpp incha allah rawatina sax fii ci Sénégal ñoom itam sëñ Mor ñu ngi lay wax salaamaaleykum. alekum salaam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. yéen bokki taalibe yi bokki jullit maa ngi leen di nuyu ci njiital président suñ président sëñ Mbacke Ndiaye ak porte-parole sëñ Sidi Niang ak waa Espagne gépp ak waa Jospar gépp da dama fee ñëwoon tey ndax mag lu muy yëngutu lopp fukki at ak juróom war naa dem dañ ko xool ko ba xam nu mu mel tey nag dama doon dinaa dem dogo ji jumaa yi ba xam doge nu mel ak yooyu mais képp ku ma seen ku bokk ci yoonu sëñ Touba di nga ñëw doge si ba xool ni mu mel kon boo demee loo am di nga ko ci def loolu la laaj bu doon fukk dee nga joxe ñaari téeméer waaw ni ma def tey daal bëgg naa ñëpp def ko ndax dikk naa tey sama kumpa dañ na fi doge naa fi xam naa lu fi ne maa ngi nag sant waa Muxaddamatul Xidma yëpp ak ñi leen jàppale ci liggéey beeg organisé bi daa métteeg fu ne nga teg fa lal fa daw dikk xëlloo soxla ku ne yooyu yëpp wax dëgg dafa métti waaw maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm it waa diaspora yëpp képp ku ne diaspora gërëm naa la di gërëm it waa senegal gépp gépp ku di ku di murit daal gërëm naa la te xam ne nañ gën a góorgóorluwaat la ma daa wax rek laay wax jàppaat ci euh, lii taalibe lii di taalibe sëñ Touba fii bu ñu jàppee li ma daa wax du ma compte jumaa gi dafa war di am xaalis dafa war di xaalis parce que adduna bépp la ma daa wax naa ko wax du bari wax wax dëgg mën nga ko toujours ndax mat lu fay seen ni biñ ko fi bokk am na at moo xam ne dayal nañ ci yooyu jamono te fi ñu la xaalis ëpp fi ñu la xaalis gën a yomb kon adduna bépp ñu bokkee Muxaddamatul Xidma nga xam ne duñ naa Espagne comme ni ñu sasee woon xam ne dañoo sas tapis yi ñu Espagne ñu def ca lu ñuy wax waaye sasuñu waa Espagne rek bàyyi dañ mboolem adduna bi ku nekk diaspora ci nga bokk ku nekk Sénégal ci nga bokk ñëpp ci lañ bokk kon war nañ ci gën a góorgóorlu gën a cee taxawaat gën cee takku ba daal fas yéenee gën a doxaat dox bu doon dox nan daw ba nga xam ne daal compte gi war na am xaalis fu ñu toll maa ngi sant nag mbooloo mépp sama xol seet na guy par li ma fi gis kontaan naa trop nun nag waa ah, Espagne war na la gën a góorgóorlu gën a dolli ndax boo ñëwee buñ ne Espagne rek foo dem dañ la yaatal jàllal jàllal bu dee sëriñ jàllal jàllal lañ ko maa ngi sant maa ngi leen gërëm yàlla na yàlla may fan wu a ànd wér man teewaat ko fi déwén ak jàmm kenn bañ a manqué jërëgéen jëf a waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf yaakaar naa kaddu yu soññee la kaddu yu am solo la te mel na ni waa diaspora yëpp am nañ euh, ay kaddu yoo xam mën nañ ko cee jànge bu baax baax yokk seen góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi doon góorgóorlu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa